wassalaamu ala rasulillahi sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokki réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di nuyu ci turu fadilati cheikh sidil moxtaarul ci kàddu lislaam bi di asalaamaaleykum wa rahmatullahi wax rek ni ñëw nañu daje ci bërëb tedd bu sell bi nga xam ni daan nañ fi daje waxtaane jëmm ju tedd bu sell bi nga xam ni moom nga xam ni mooy cheikh bu Mouhamad Kunta almaaruf bi bay bu gën a siiwee ci turu cheikh bu Mohamed gane àddina en 1914 gannaaw way juróom cheikh bu Kunta mi sanc Njaasaan kooku noonu nag génn àddinaam tombé ci atu 2006 keroog bi mu demee bay génn àddina la dajale njaboot gi ne leen gàmmu ngeen ñu ne ko naam mu ne leen di ngeen gàmmuwaat gàmmuwaat boobu noonu tey nag yàlla def mu dellu siwaat war nekk incha allahu le 30 décembre 2016 incha allah di doon ajjuma sëriñ bi nag ni fa way juróom Cheikh Bou Kounta tegoon tànkam moom sëriñ Sidi Mokhtar du teggi tànk boobu noonu foofu rek la koy tegaat daana yëkkati kàddoom ci jamono boo xam ni ñaaw ñaaw bari na ñaawteef lëmbi na jamono mu daal orienté nit ñi ni comme ni ñu koy waxee régulateur sociale la woon moom baay bu radiallahu anhu dinañ ci nettali jamono bi nga xamante ne déluge boobu noonu amoon na fi li mbënd moomu nga xam ne li mu rayoon ci ay bëy ak ay xar kenn nattable wu ko dafa toog ba yàgg rek am lu ko yàlla woon mu daal di woote ni nañu génne saraxu ay dërëm dërëm tabaarakallaahu am ñu ko def am ñu ko deful woon waaye ña ko defoon yàlla muccal na leen ba kenn ci loru ci beneen bi ci topp mooy batulu joolaa bi mu demee bay bëgg a suux woowoon na njaboot gi ne leen génnee leen saraxu nangam ak nangam yàlla def na itam mboole koo xam ne génne woon nga sarax boobu wala sa njaboot génne woon ko muccoon nga ci musiba boobu moom itam tey bi mu doonnoo waajuram dafa wax ni du toog fu dul foofu mu toogoon du def lu dul loolu mu defoon ba seetlu ni rew mi tay jaxaso bi bari na coow li bari na nee mu ne faaw mu yëkkati kàddoom ci occasion 11e édition bi nga xam ne mooy cheikh bu gàmmuwaatu cheikh bu Mohamed Kunta ni mi ngi ci njëkk a wax li nga xam ni moom moo lëmbe àdduna tey di wàllu rey te ku ne xam na ni bakkan bien comme la ñun ñëpp dañ ko war di sàmm yàlla wax nag ci alquran walakum fi l qisaas xayaatun yaa ulul albaab laallakum tattaquun yalla mi nga xamni mom mo sak bakan moko ñëk ko fonk moko ko jox cër bani nit ko xamni ni na tay ko dara du yellu ci mom lu dul nu ray bakan bobu ko ray waye nak am charte lolu nan nak le serigne bi wax ni jamono ji nga xamni ñi ngi koy tuddu di gis fu ne nee na na pour présenté benn projet de loi ñi nga xam ne ñooy député yi ngir ñu dogal loolu noonu tey ci réew mi ngir ñu mën ko bàyyiwaat xel te xam ni bakkan yàlla moo ko njëkk a fonk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itam jàngaluñu lu muy lool leneen li ci des mooy li nga xam ni mooy jamono tey internet nga xam ni dañuy wax ni couteau la à double tranchant ñëpp a ngi gis ni ñaawteef yi ci am bari na li ciy njëriñ nanu ko jël jariñoo ko lu ciy lu ñaaw nanu ko jël sànni fële te xam ni réew mi ay jikko yu rafet ak ay valeur loolu lañ ko tabaxee sëriñ bi nee na li ci am ci lu rafet mi ngi koy rafetlu ndax itam wax léegi ne ñu jàllale ko ci réew ak bitim réew jàngale mi yomb na waaye tey la cay la ñaaw nanu ko fexe bàyyi te xam ni loolu du ñu jëmale fudul ca naaru jahannama nañ ko moytu beneen bi ci des mooy situation bi nga xam ni moo am fii nga xam ni mooy Gambie su euh, ki nga xam ni moom moo fa nekk tey ku ne xam na ni ak lafa am ku ne gis na ko waaye nañu bàyyiwaat sunu xel ni yàlla sunu borom tabaraka wa taala moom mooy joxe nguur te ku mu ko jox nañu xam ni yow la ko jox qul illahuma malikul mulk tuutil mulk man tasha wa tanziul mulk man tasha moom dong moo amee nguur te moom itam moo koy jox ku ko neex kon nañu prone dialogue nanu waxtaan te xam ni ki ko yàlla jox moom la ko yàlla jox ki mu ko jëlee ci moom itam ñi ngi koy woo mu dellu ci raison te xool ci askanam bu nu ko gën a gore benn yoon sëriñ bi nee mi ngi ñaan dara xaju fa lu dul jàmm ndax njabootam ñoom ñoo fa nekk tey cheikh bu mohamed kunta jàng génnul waaye néew na fi mu génn foofu mu génn na bokkoon na ca gambi ci dëkk bu ñuy wax gunjur mu dugg fa xëlwa junni guddi di ay at yoo xam ni tey xunt boobu ku fa dem rab bu ragal sa boko fa dugale dana daw waxuma la dit waxuma la doomu aadama kon jabotu cheikh bu kunta ñofay ne bu gamu joté bu gam gi di cheikh bu bu cheikh bu mohammed kunta gi joté dañuy def ay kari kari kar di ñok kon jabotam mom mo fa nek kon mi ngi len di wo di len ñaan itam yaaya jamme bu ko peuple am gëna goré gore na joxe wat nguur gi ci jamm muy yow itam ñi nga xamni ñom ñoy chef d'état yi ñu gëna waxtaan bala arme di juk ngir jamm ci la lepp xaj benen bi ci top mom moy li nga xamni mom mo am tay di défense bi nga xamni cause palestinienne défendre nañ ko ci sécurité de l'ONU koku noonu serigne bi nee la fa am koku defal luñ ko kenn ku monde islamique ndax itam du président Macky Sall mom mo ci am ndam waye duñu wax rek Sénégal mais dañu wax ni Séné aduna ci bopam mom mo am ndam ci lolu ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ni nit ñepp sen jullit yëpp seen jëmm wala seenu dund dafa war a mel ni jëmm doomu aadama tabaarakallaahu lu ci laal rek leneen daf ko war a yëg kon donc jàmm jooju noonu nga xam ni wala li nga xam ni moom la Israël doon noot palestiniens yi ak ñeneen ñu dul ñoom di teg alal di teg seen tànk wala seen loxo ci seen suuf loolu noonu ñu fexe ba loolu dakk sëriñ bi nee na loolu defaluñ ko kenn ku dul njabootu islam bi gi yëpp kon mi ngi koy rafetlu di ñaan itam bis bii nuy ma di la 30 di gàmmuwaatu bay bu Mouhamed Kunta yàlla yóbbuñu ci ak jàmm ñu fekkee ko ak jàmm lépp loo xam ne xeeti musiba la ak balaa yàlla dàq ko ci réew mi lépp loo xam ne xéewal la ak teraanga yàlla indil ñu ko ndax amuñu fu dul sunu réew mi ci Sénégal ndax Cheikh bu Mouhamed Kunta loolu la sancee itam dëkkam bi Cheikh bu Naama Kunta ci loolu la fi ñëwoon en 1800 dëkk bu ñuy wax ndànk chabu Bou Kounta fi en 1883 kon neñu tam ñun amuñu fudul Sénégal di ñaan yàlla yóbbuñu ci jàmm ak salam salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatu wasalaatu wasalaamu ala sayyidil mursalin muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokki jullit yi asalaamaaleykum wa rahmatullah man la sëñ Abdourahmane Kounta ibnu Baye Bou di rakk ci El Hadj Sidi Muxtaar Kounta ñoo yëkkati suñu kàddu ci ndigalu El Hadj Sidi Kunta mi nga xam ne nii moom moo toog ci xilaafa bay bu jëme ko ci askanu jullit ñi waaye jëme ko ci askanu Sénégal rawatina képp koo xamante ni yaa ngi wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah gannaaw loolu dañuy njëkkee ci li nga xam ne ni moom la sëriñ bi dëgmal te mboolem senegal yëpp dëgmal ko waaye mboolem turux yi nekk ci senegal yëpp dëgmal ko muy bésu way juróom ba di boroom xilaafa gu rëy ga di boroom taxawaay guy yaatu ga muy Cheikh Abou Mouhamed Kunta bisam boobu kañ la la 30 la ci weer wi nga xam ni ci la ñu nekk muy tombeek ajjuma muy ajjuma bii di ñëw kooku nga xam ne ni nag mooy cheikh bu Mahamad Kunta taxawaay gi mu taxawoon ci diine lislaam ndax suñu waxee tariixa day daal di gàtt waaye taxawaay gi mu taxawoon ci diine lislaam Sénégal yépp a ko xam moo tax bi yàlla dogalee keroog mu bàyyi koo fi e, ñëpp yëkkati woon seeni xalima daal di wax ci moom dañ koy njëkkee si suñu dëkkandoo ki nga xam ne ni moom mooy e, sëriñ Mansour si mi nga xam ne nii ci xilaafaam euh, fekk na fekke na wuyu ji borom ba keroog bañ ko tàggee ki nga xam ne ni moom mooy cheikh bu Mohamed Kunta tàggeekat bi bu mu ñëwee ba wax ko ba dem ndax wax na ko sëñ suuf si mel ni koo xamante ni sax xelam daal daal di dem ndax tontul ki nga xam ne ni moo ko ñëw tàgge si ba kooku dem ba sori ci la koy soogoo woo naan koy yaa naa iyan fii naa xamida sifaati xibra zamani wa saaxiba xalawaati mu nekk e yow mi nga xam ne yaa ñëw tàgge ma boy dem yow mi ñëw tàgge si ki nga may tàggee di koo xamante ni ku ñu sant ay jikkoom la muy fóoréb xeetam mooy koo xamante nii ci jamonoom maanaam fóore la woon waaye yaa ngi tàgge koo xamante ne nii boroom xal la woon doon wéet di jaamu boromam waaye muy woy ci biir woy bi parce que sëñ Mansour soo seetee woyam boobu da ko xaaj ci ñetti parti ba ñeenti parti benn bi dafa xamle kan mooy seex bu Mouhamed Kunta waaye beneen bi dafa wax taxawaayu Cheikh bu Mouhamed Kunta ci diine lislaam waaye taxawaayam tamit ci famille bi nga xam ne nii moom la bokk parce que soo demee ba ci biir woy bi ma nga naan qad aasha fiina walidan wa faxaarana fi l atfi awil ansi maal lutafaati mu ne kii ngay tàgget yi moom de nekkoon na si suñu biir maanaam amoon na taxawaay boo xamante ne nii taxawaayu wuy jur la boo xamante ne nii mu ngi taxaw ay njabootam maanaam ay doomam waaye ki ngay tàggee kat nekkoon na koo xamante ne nii suñu puukare la woon suñu puukare la woon waaye tàgge nga koo xamante ne nii ku am yërmande woon la ci njaboot gi nga xam ne nii moom la jiite woon waaye ci njabootu lislaam yépp waaye mu dem ba mu yàgg mu naan ko wa qad iltaqat kullul qulubi qulubi li xubbihi bi xanaanihi al abawayyi wa shafaqaati mu ne waaye ki nga xam ne nii mooy cheikh bu Mouhamed Kunta nekkoon na koo xamante ne nii xool yépp a daje woon ci bëgg ko lan moo tax ñu bëgg ko mooy yërmande bi mu amoon mooy ñeewante bi mu amoon di ñeewante baay ni muy ñeewante doomam noonu la meloon ci ñun waaye mu dem ba mu yàgg moom Serigne Mansour ba léegi muy wax taxawaayu baay bu ci li nga xam ne ni moom mooy diine lislaam mu ne fa janaahu linnaasi difuun lam yaish illa aban bal xaamilal kallaati mu ne ki ngay tàgge de nekkewul woon représenté wul woon njaboot gi lu dul nangoo nekk baay waaye yemu ci dundam gi dafa doon dundu ba pare nangoo gàddu coonay askan wi nangul woon kenn sonn nangul woon kenn jaaxle jaaxle askan gi da koy jël mu toggoo ko moom ci boppam kon ki ngay tàggee mooy borom jikko yu sell yooyu mooy borom jikko yu rafet yooyu moo tax woykat bi day wax ne ma abbu way bi ndax Ibnu di moo ko wax ma ngay tagg ñi nga xam ne ni ñoom la la wóllante woon mu ngay tagg ay sangam naan leen mazala yasmu fawqal ula bi fiilihi hatta ala fawqa al ula law yarqa ahadun bi juudihi wa majdihi lartaqa cheikh bu Mouhamed Kunta mu ne kii de di cheikh bu Mouhamed Kunta dañul di kawe di yéeg ci ay jëfam yu baax ak ay tabam yu baax ba mu kawe lépp loo xamante ni lu kawe la ba mu gën a kawe lépp loo xamante ni lu kawe la mu ne maa ngi lay xamal ni su fekkente ni nit dina yéeg fi gën a kawe ci njëmbaxtal yi gën a kawe ci ab tabam ak ak mbaaxam mu ne kon na nga xam ne nii cheikh bu Mahamad Kunta kawe na fu kawe yam ndax tab ga ndax mbaax ga ndax yaatu ga waaye sëñ Mansour ma ngay waxaat ca biir xasidaam nga mu ne cheikh bu Mahamad Kunta ab keppaaram dafa nekkoon keppaar boo xamante ni bu ndugg la maanaam ku jaaxle ku tàng mbaa nga sedd seddaay gu ëpp fa ngay dem ngir féexloo fa ci ay keppaaram koku moy cheikh bu mohammed Kunta bésam nak le serigne bi di woote muy am di cheikh sidou mukhtar Kunta di ñaan mboolem ñi nga xamne ni kérok bi mu fi bayiko yëg nañu ne ab jambar bayiko na fi mu ngi len di fatali bés bi ñeeke ko suñu mbokk wa tiawon waye mbokk wa Touba di la sidou di sidou mukhtar cheikh sidou mukhtar mbacke ak ki nga xamne ne ni moom mooy sëriñ cheikh Tidiane si. ak mboolem turux yi nga xam ni ñoom ñoo nekk ci Sénégal ne leen kat bi mu fi bàyyi ko nañ ko yëgee ba yëkkati seen xalima bind ci moom mu ngi leen di xamal ne bés boobu dellu si na ñu ngi koy fàttaliku di ko di di bokk ak ñoom di ko di fàttali li nga xam ne moom mooy bés boobu te nag yonent bi dafa wax ni inda zikri saalihiina tanzilu rahma mu ne fàttaliku bi ñuy fàttaliku nit ñu baax ñi ci la yàlla di wàccee yërmande te nag yërmande suñ ko waxee Sénégal soxla na ko yërmande suñ ko waxee àddina soxla na ko ndax àddina jaxasoo na ndax kat damay gis ni ci rajo yeeg ci télé yi ñi nga xam ne ñooy wax ak diine wala sax journaliste yi su réew mi jaxasoo dañuy dem ab bi kaseetu mag ñu baax yooyu nga xam ne ni ñoo fi nekkoon ku mel ni Cheikh bu Mahamad Kunta ki ku mel ni Serigne Abdou Aziz Sy Dabakh teg ay kasetam ngir di fàttali nit ñi di leen delloo ci yàlla waaw ñooñu taxawaay gi ñu taxawoon xanaa njaboot giñ fi bàyyi dañoo taxawul taxawaay bu mel noonu ba tax ñuy dem di abbu seeni kaset yooyu di ko teg waaye waaye nañu bàyyi xel discours Cheikh Sidi Moukhtar Kunta yi muy faral di def ci ñaanu baay boobu bi moo ne dañ koy tànqamlu rawatina yéen journaliste yi waaye moom nekk na koo xamante ne nii dëgg fi mu ko fekk fa la koy bàyyi waaye saa yu toogee tamit képp ku mu war a wax dëgg dala koy wax waaye ñëw leen saa ngeen di dem abbi kaset yooyu di ko tegaat ndax ñooñu dañ fay bàyyi njaboot te ñoom dund wu ñu woon rek pour ñu jóge koo fii seen histoire daal di arrêté waaye dañ fee dundoon ngir suñu fi jógee seen njaboot yooyu ñu fi bàyyi ñu wéyal seen liggéey googu nga xam ne moom lañ doon def comme ni ko Cheikh Sidi Mokhtar def di defee ci xilaafa baayam ak ci bésu baayam bii réew mi nag soxla na ku ko sang ndax xalifa bu baax waxoon na ko ne réew mi suñ ko sangul deret deret dina ko sang te léegi nag ñu ngi toll ci jamono jooju waaye dara yóbbewuñu ko loolu ne dañoo bàyyi alxuraan ak sunna Hamza wax na ko fi léegi ne nañu delloo mbir yi ci alxuraan ak sunna yàlla moo wax ni yàlla moo wax ni képp koo xamante ni dumbooyu nga sama alxuraan ak sama sunna dinaa la defal dund goo xamante ni dund go kereej lay doon kon nañu dellu ci alxuraan ak sunna waaye dellu it ci liggéeyu mag ñu baax ñi comme ni ko El Hadj di defé mu ngi len di fatali bés bi muy le 30 euh, ci weer wi nga xamné ci lañ nek muy aljuma bi di ñew yal nañ ci yalla yob ak jamm wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hamza Kunta, fils de Serigne Sidi mokhtar kunta l'actuel khalife de Cheikh Bou kunta Kounta euh, à l'occasion de la 11e édition du Gamouad de Cheikh Bou Mohamed qui est né en, euh, qui, qui a pris le khilafa en 1987 entre 1987 et 2006 son khalif Cheikh Sidi Mokhtar Kunta, en suivant les pas de son père, en jouant le rôle de régulateur social, euh, un régulateur social digne de son nom, a une fois de plus saisi la presse afin de leur parler de la situation actuelle du pays. Tout en savant que le pays aujourd'hui est en train de traverser d'une dégradation des mœurs considérable dont on peut énumérer l'aspect, euh, la, façon dont les jeunes copient euh, les Occidentaux, la façon dont on utilise aujourd'hui l'Internet qui est un couteau à double tranchant. Euh, Cyril déplore la façon dont euh, certains jeunes, certains actes malsains qui sont en train euh, de ravager aujourd'hui euh, la jeunesse, notamment les jeunes filles, euh, il leur invite à prendre recul à cette à ce genre de dérapage-là. autrement dit, dans un autre aspect aussi, le cher Sid Mortar, condamnant aussi les actes barbares qui est en train, que l'on note ces derniers temps-là aussi au Sénégal, euh, comme la façon dont on tue, les séries de mœurs qui se répètent euh, du jour au lendemain, c'est Matar Kunta. En se basant sur le Saint-Coran, euh, Allah nous dit c'est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie ou vous douez d'intelligence. Donc, à cet égard, il a aussi vite essayer euh, de saisir euh, les députés de l'Assemblée nationale afin d'introduire un projet de loi qui va faire revenir la peine de mort parce que la façon dont on tue les gens, c'est excessif et l'âme le, l'âme aussi, l'homme est un bien commun. Dans un autre aussi, dans cette lancée, Céline Mortar Kunta invite son homologue euh, gambien Yaya Diame à qui le peuple a choisi, parce qu'il faut savoir que le peuple gambien est souverain, et il a choisi son président, étant un membre parmi les Gambiens, parce qu'il a des centaines et des centaines de, disciples qui vivent en Gambie. Celui-ci de mortar Kunta aujourd'hui leur invite à travers euh, les chefs d'État de leur dire de prôner, de prôner la concertation, d'essayer de revenir euh, M. Diamé en raison, afin qu'il puisse donner le pouvoir paisiblement, avant que les armes se lèvent. Il les invite aujourd'hui à prôner la concertation et le dialogue. C'est en ces mots, en saluant aussi euh, ce qui s'est passé ces derniers jours au Conseil de sécurité de l'ONU, avec l'adoption euh, de la résolution du Conseil de l'ONU condamnant les, les colonies euh, israéliennes qui, qui ne se basaient pas sur la vérité, qui étaient d'une façon un peu barbare. celui Matar Kunta, salue cette initiative du Sénégal et vous appelez encore une fois à la 11e édition euh, du Gambois de son père, prévue ce vendredi 30 décembre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 kon ñëw ngi ko yëgal jullit yi comme ni ngeen ko daan yëgee ndi njaboot gi wax nag mooy suma wax li ci topp nag mooy ni wa abudullah wala tushriku bi shay'an wa bil walidayni ihsana jaamu leen yàlla ca fonk seen i wayjur lépp li ngeen di def ak lu mu mën a doon xale yi jiital leen ci lépp lu mu mën a doon jiital leen seen i wayjur fonk leen seen i wayjur door a ñëw ci keneen ku mu mën a doon nag kon nag maa ngi joxe ndigal naa ne képp ki nga xam ne yaa ngi ñëw ci bés bi jaaral sa sa wayjur bu mu jox leen ndigal nga door a mën a ñëw ku fi ñëw nag wuy sumate jaaru sa ndigali wayjur baalu ma la ko ndaxte man awma dul kilifa kilifa daal moom dañ koy jox ci cëram te yàlla nee na bu am na keneen ku ñu war a sujudal wala ku ñu war a rukoal wala ku ñu war a def leneen kon wayjur lay doon waabudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana dégguma fa leneen nag loolu wayjur kon nag aleykum bi taqwallah mooy Sidi Muxtaar ak yéen nañ ale taragal yàlla wóolu yàlla doylu yàlla dudul yàlla neen na na loolu nag ñu ngi sant borom réew mi tamit di président de la république Macky Sall ak soxnaam ñu ngi sant tamit njaboot gi yëpp tàngam lu sunu leen taxaw nañ ci li ñu war a taxawee ci suma wàllu wér-gu-yaram ak yeneen i mbir yëpp taxaw nañ ci li mu war a def yëpp def nañ ko kon nag sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp alhamdulilahi rabbil alamin ku dégg suma kàddu nag li nga njëkk a wax ne alhamdulilahi rabbil alamin ndaxte xalaatu moo ne dinaa ko mun waaye kon alhamdulilahi rabbil maa ngi sant yàlla ku mun naa lii alhamdulilahi rabbil yàlla ñala lafal cat bés bi nag bu ñu xëyee dinañ jàngal quran ba ay une heure mi de demee une heure xale yi dinañ am benn waxtaan bi nga xam ne dañ ko def ci wàllu diine dañu demee nag ba ci tàkkusaan gi dinañ def ko cérémonie bi ku ñëw ci teew ci ñoom rek nañ la tëral waxtaan ak réew mi waxtaan ak guddi gi nag ñu fanaan jàng ba bu set kon journaliste yi mbir mi seen mbir la ñoo ngi leen di sant leen di gërëm di rafetlu seen i teewaay ñoo woo woolu tamit nga jóge Thiès ñoo fekkuñu ba fii ak Tiwaawan kon salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu kilifa yi jën yëpp nga leen